dal ak jàmm mbokku internet yi lu bees ci mbirum Hiba Thiam bi waa këram jot nañu constitué wu partie civile ngir topp mbir mi ca yoon leeral ko ba mu leer nañ journal bii di quotidien libération jot na amal ay feeñal yu doy waar ci mbirum Hiba Thiam mi nga xamante moo fi faatu woon ci ab soirée privée boo xamante ne ña ko amaloon ca Almadi te la ko faat bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne moo tukkee ci médecin ya ko doon defal autopsie ci njël benn weeru avril bi résultat ub saytu ga wane ne ñàkkoon bakkanam moom nag ay waa këram fasuñ yéene benn yoon bàyyi mbir mi mu sedd bu ñu sukkandikoo ci journal Libération ay waa këru Iba Thiam dañoo constitué wu partie civile ngir gën a may yoon mu topp mbir mi ba mu sës leeral ko ba mu leer nañ maître du Diagne instruction bi ne fàng dàcc kanamu juge du huitième cabinet bi daanaka fi mu ne dina mën a may nag yoon gën a mën a def liggéeyam ba lépp leer ci mbir mu doy waar mi nga xamante ne jot nañ ci teg loxo ñu bari te ñoom ñëpp daanaka kuñ ci déglu la ngay wax ak la sa morom di wax dafay wuute day mel ni yàlla ak ci bànne lenn ca procès verbal ya benn ci yooyu di bosub kii la ci ñi ñu joxuñ baaraamu tuuma neex wax neex mi ngi dëggal na dëgg-dëgg kilee di loti ba ma nga woon ca biir néeg ba di géej a dimbali kilee di Iba moom mi nga xamoonte ne jamono jooju daf amoon ay jafe-jafe noyyi waaye ba tey neex yemul foofu nee na ba mu dellu suwaatee ca néeg ba ci da jàkkarloo ak kilee di loti ba ba ne ko o oh, neex xale bi dee na waaye neex yemul foofu de li ñëpp bañoon a wax moom neex moom la ne fang woon xibaar ko sandarme yi moom neex nee na am na ab plateau bu fa nekkoon fees dell ak dorog ñoom ñëpp ci la ñu doon jëfandikoo loolu de leer na tunga ne du teew ñuy nataal ñu yemandeek yéen foofu jërë ngeen jëf